wax dëgg yàlla nga am xale yoo xam ne mën nga leen tester. Mhm. mami. yàlla baax na dina leen tester dina leen tester. kañ ah Aliou dinaa ko woo téléphone. Ah. dina leen teste du dëgg. ayca bés bi le jour. Mhm. ñëw ci Ziguinchor mu ne la récusation du juge Sabassi devant la cour d'appel ce mercredi. Mhm. mu ne suspense la. mu ne l'appel qui peut tout changer. oui. Sonko bloqué par la notification du juge pour retirer ses fiches journal ba wax na ca. mu ngi nii ils ont bouffé du lion démb ci ci match bi euh, le lion yi euh, beneen bi ci suuf mooy lii bu leen ko fàtte papa Assane yow lay waxal fii de. yàlla ma ne. la bagget magique de que l'ASCOSEN hausse annoncée du prix du pain j'espère que mburu bi du yokk. maa ngi ci beñe dugub. beñe beñe dugub bu saf suukar pa Assane moo ko moo banaan muy suukar te nooy nepp. mami moo ko moom xeer bu wow ko te doo ko yëy nagu moo ko moom <laughs> maa la jox xeer bi <laughs> direct news ñëw ci tournée fii ci Ndakaaru mu ne Amadou Ba à la conquête des religieux et des chefs coutumiers ah dem nga seeti leen waaye yàlla baax na yàlla baax na du dëgg enquête ñëw ci euh, amical Sénégal Cameroun bi mu ne les champions d'Afrique tiennent leur rang c'est bien il faut continuer à le tenir ah papa Assane nee fi ngeen jëm foofu Abidjan. Hmm? du yomb de. Hmm, hmm. beneen bi mooy Lat Diop dañuy dem dénk 24 heures mu di parrainage présidentiel 2024 Lat Diop laay wax ak ministre des sports. ak ak ak sonkorisation moo baax moo mën moo ak la xale ya sonkorisé France démb. ñoom fu looloo ma jaaxal pourquoi journaux yi waxuñ ci. fépp la ñuy sonkorisé. waaw journaux yi duñ ci wax non journaux yi duñ ci wax. yëngal yi loolu du information ñoom. il faut comprendre actuellement presse bi ay sonkorisation yi du information ci ñoom. sonkorisation bu nekk waaye du xew-xew ci ñoom waaye déggoo ma jeunesse bi yooxu nañu ci kaw ba suuf loolu intéressé wu la. waaw léegi ma ne bu campagne bi jotee ko sonkorisé info lay doon wala. du doon info ci ñoom. Ah, ah, ah. mu ne lii chemin de croix la. lii dafa mel ni dañoo jaaxle de ñaari jaaxle jaaxle dikkal na lii Pape dafa jaaxle. kii kan la. Pape Djibril. waaw ak kan. dañu mel ni ku jaaxle. ah bon ak kan la. ah, ah, ah, ah. qui n'ont pas treize députés ou cent vingt maires et présidents de conseils départementaux se confrontent à d'énormes problèmes d'énormes problèmes pour réussir le parrainage citoyen Papa Assane mu ne Pape Djibril Fall je demande mhm. aux citoyens mhm. d'ici et de la diaspora mhm. mu ne de reconnaître les coalitions qui ont soit 13 députés ou 420 maires mhm. elles n'ont point besoin du parrainage citoyen sinon elles veulent faire du sabotage yaa ngi may dégg nabu ko Abdourahmane Diouf nee na le choix de Benno Bokk Yaakaar mhm. porté sur le parrainage citoyen mais rien d'autre du leneen qu'un moyen de barrer la route à certains candidats de l'opposition xam naa kon boppam lay waxal l'histoire des doublons feuilleton entre accusation de tripatouillage mm -hmm. de doublons externes ou oui. une stratégie à 13 ou 400 pages. je par contre ils ont raison. Mhm. parce que muy Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñëpp ñi nga xam ne am nañu quota bi. Mhm. pour se faire parrainer sans jaar ci na citoyen. dañ leen war a wax ni foofu ngeen war a yem dëgg la. ñi si des dàq seen wërsëg. mais loolu. c'est comme pour saper cest dire ok am nañ possibilité bii bi gën a yomb de bu jege boo xam ne cool mais dañuy dem fële parce que soi-disant c'est une façon de dire que am nañu nangami potentiel euh, pare donc potentiellement nangam ci ay votants APR bu déparé na la man am naa un million de parrain mooy mbir mi na nar naa dugg nag foo xam ni bu Sénégalais yi xullee yow fu ngeen ni yéen barew leen di am un million de parrain yéen barew leen ah, barew leen xanaa xanaa xanaa papa ak yaay bàjjan ak tànt mbokk ya lay doon. ba tey barewuñu. waaw matuñu matuñu 500000. APR APR matuñu 50000. ji bi li ñu jëlee APR matuñu 50000. ci réew mi yow démb am démb rek euh, presque 10000 par ma ne ah, li maa wax ni nag ndeysaan boo demee ñu ngi may yekk lu mel ni xam APR matu leen 50000 ci réew mi. Ah. ñu bëri nag daanu encaissé seen xaalis lekk gàddu jël ba pare ne leen fourage tous ñebe. looloo fi nekk de. looloo fi nekk de ah. en tout cas euh, leneen Youssou waxoon 2012. lekk leen yéen a ko moom seen xaalis la waaye bu ngeen paree xam ngeen ki ngeen di voté. <laughs> moom bu leen sonn. ca Ziguinchor 150 <laughs> prisonniers. Hmm. ñu ñoom entamé nañu li nga xamante ne moom mooy grève de faim bon la libération de Nidof qui est une très très bonne nouvelle yor-yor mu ne victime de complot d'État Dia Sankara Sonko ñett ñi ñooy symbole souverainisme africain. Hmm. voilà. journal ba noo nee la ko titré yaa ngi dégg ci sud du Sénégal nag mu ne l'état tue l'économie avec l'arrêt des rotations des trois bateaux sur Ziguinchor waa Ziguinchor ñu ngi kaas lii nag c'est passé crème mais ñu ngi koy kaas. lu garaaw la. waaw mu ñu ngi koy kaas vraiment ah, yaa ngi dégg. Bougane a ngay xeex cancer waaw kay bu critique ñëw ci aux commandes du ministère des transports aériens pendant treize mois. Doudou Ka dafa atterrir avec les honneurs laas ñëw ci candidate à la présidentielle sous la bannière de ARC kooku kan la Anta Babacar Ngom la surprise politique. Mhm. wuyaa yooyu ni ngeen di nga élection yi dina neex nag. Euh, Mamy ak Nabou. oui ak Anta Babacar. Mhm. xam yaa ngi may tooy. Mm. papa Assane yaa ngi may tooñ bu ma la ko waxee yaa ngi may tooñ bu ma la ko wax yaa ngi may tooñ. Ah. yaa ngi dévoilé suma secret yi nga xam ne moom la bu bu dévoilé suñu secret yi. non moom sax dafa wax rek xëy na yow danga nga da nga retiré sa fiche de parrainage tout comme man. xëy na tout comme euh, Anta Babacar. amoon ma ne. mbir mi dafa may niróolu lan lan daal. en tout cas daal ngaa la kan yow yaa moom nu mu seen jën. naka baax jën. waaw léegi nag man man naa moom baax cuuj dama lay wax affaire bi daal xeeñ na ginaar duq yi tam ñu ngi jaxawaanu ate Babacar Ngom nag journal bi nee na mooy la surprise politique foofu laa yam point baax mhm. léegi keneen kii mooy ministre de la ministre ministre de la justice puis chef de la diplomatie ministre des forces armées désormais ministre de l'intérieur tubaarkàlla Sidiki Diakaba moom mooy l'éternel souverain journal ba waxee na ko noonu le quotidien nee na papa Assane. Hmm. Nabukoor. oui le quotidien nee na. waaw Sonko mii ñu interné hôpital lu tolloog 72 jours. Mhm. juróom fukk ak ñaari fan yoo xamante ne ma nga tëdd ca hôpital. Mhm. mu ne ndax kii moom patient la boo xam ne dafa spécial wala day laaj. mu ne ndax moom mu ngi coûter cent cinquante mille francs CFA par jour au contribuable. kon mu ngi principal ba tey ci ñi doon wax ne dem na soppi ko <laughs> mu ne nag l'État ferme les yeux sur son transfèrement mhm. lu quotidien moo ko wax de nee kii seer na lool ci contribuable ndax cent cinquante mille lay coûté mhm. te ma nga tëdd ca hôpital ba soixante-douze dama dama nee na kii lan moo spécial ci moom non man maa leen bëgg a laajaat ñoom spécial dañuy laaj ndax dafa spécial ou pas waaw dañ koy ah dañ tëdd eh, fële Sénégal saa yu ñu moom la ñuy waxtaanee ah. coow li coow li moom la de mm. Mm. mais mais mais mais euh, bu fekkee ne yii nu coûte cent cinquante mille francs mm-hmm. euh, par jour Euh, ñi mu àndal mën nañ leen ko fayal ah amul problème ñi ñi mu àndal mën nañu fay ñoom ils ont l'argent pour ça euh, ñi nga xam ne ñooy yooxu ci stade yeeg yooyu bu leen nee ñu fay loolu loolu du problème loolu du débat loolu vraiment si c'est à rembourser les gens peuvent le faire les partisans de monsieur Sonko peuvent bien rembourser c'est pas un problème il faut faire la facture ils rembourseront maintenant loolu benn la beneen bi beneen bi am na ñu bëri ñu nekk ci Sénégal ñoo xam ne ñu ngi la peau des fesses ngeen baal mooy ñan. ñu jàkkaarloog ñun la présidence de la République du Sénégal nous coupe la peau de fesses plus de quatre-vingts milliards de budget xoolil <laughs> nous avons cinquante deux semaines l'aller semaine bu nekk un milliard oui ma. Mm. présidence xanaa du ñu dépasser un milliard par semaine. Ah, un milliard par semaine. après on te dira oui les agences yi dépendent ci présidence puis les services nangam nangam xam naa la ñuy jënd ci papier ak encre moom du doy. xulil. Mm-hmm. xulil yokk ci oto yi yokk ci téléphone yi. xulil yokk ci seeni i courant. Mm-hmm. xulil yokk ci seen ab ndox xulil. Mm-hmm. yokk ci seen ab lekk ak seen naan. seen i yokk ci seen kérosène. maa la wax yokk ci seeni i billet. xam nga ne Dakar Dubaï 4 millions 5 millions ci billet first class ak la ca des fay ak yeneen ak yeneen. multinationales yi ñu baal ay impôt kakaa fay. li ñuy jël nii ci Sénégalais yi parce que fa ñu ko doon jëlee jëluñu ko moom bi wax na leen ko 2017. am ah. yéen a fi bàyyi ay niis yu xam lu ne mën nañu ko ci am ngeen ne lank di doon ko laal ndax xaritoo. maag diw euh, tu sais euh, le chef de l'État de on ensemble à Sorbonne donc euh, c'est un bon ami quand vous gérez pays comme ça. ngay wax 150 000 kii quotidien yi ngeen baal ñu. am ngeen lu ngeen mën a tiitaree Jalige. maa ngi laa nuyu ak kilifa yi fa ne ak monsieur Diagne ma jàmbal kilifa bi. mu ngi laa nuyu baax. li ñu mën a dénoncer ci ci hmm. lu noo coûté cher. saa yi du lii lii détail la ça pour ça c'est pas un problème faites la facture les les partisans de Ousmane vont rembourser. c'est pas un problème ñun sax dañoo amul problème nag Baye xam nga problème bi lan la. ñun ñoo mën a fay nag waaye c'est que ñoom ñoo mën a wéeru. ñuy fay rek nga wéeru. ñun mën nañoo fay de. d'accord ñun caaf sax mun ko jëndee fay. yàlla baax na Sénégalais yi jëndi benn dugub te bàyyi kii. benn la benn dugub te bàyyi mbir mi. keroog waaw mais on est une chanteuse. keroog am nañu benn kilifa bu ñu tegal benn dugub xool tegal ko benn dugub mu ne du ko laal. du ko ndax benn Sonko la. amiin du ko laal ndax benn. Sonko nga ne ko ndox mën ko yow xoolal xoolal xoolal xalaat bi. nga xalaat bi yow neex waaw waaw. waaw kii mbayante sa micro yu bees yi nga jël paqueté ko foofu bañ kaa génne génne ko. ak ki yor matériel di nëbbatu di làqatoo ko wàññee denc. xam nga ni nag lii. tu naa tu na tu changes ça. waaw waaw. solo bi. nii. Eh. ak lan. di di eh. borom kérosène yi. <laughs> le regard mu ni après des années de compagnonnage Pastef et Taxawu se séparent ah, naqari na lii l'amitié après l'amitié journal noonu la ko titré les échos ñëw ci acte contre nature présumé et viol multiple à Pikine ma taxaw foofu subhanallah gune jii fukki at ak ñett la am 13 ans mu ngi ak raconté horreur bi ko dal le communicateur en prison la présumée victime expliqué na ay détails yoo xamante ne ça ne plaide pas en faveur du communicateur traditionnel ci la na ci réew mm-hmm. le mise en cause nee na nee na moom deful ba pare crier na à la cabale dans le but de nuire à sa réputation. loolu nag moo bëgg a yàqal kan mooy mise en cause bi. xaw ah, ma ko en 2016. ah nan la journal il avait été traîné en justice pour les mêmes faits. mais nan la journal bi bindee loolu te du wax kan la. ah wax dëgg yàlla communicateur traditionnel rek la wax de. kan. man dama ko xam man xaw ma yëguma woon sa affaire viol koy door yëg ni yëguma ko de na bu dangaa xam kan la. non désolé. man nag bu sa erreur bi dinaa la gaañ de. non non man nekkuma ci ay faits divers combat des lions nag foofu ca match ba mu ne Sénégal donte na Cameroun avec la manière l'évidence mu ne dissidence à la candidature de Amadou Ba mu ne pourquoi Mayacine Camara mi échappé à la jurisprudence des sabrés. laaj la boo xam ne journal ba def na ko Bougane Gueye Dany dafa engagé wu ci li nga xam ne moom mooy sensibilisation bi avec la LISCA euh, bi xeex wàllum cancer. te bu ñu fàtte ne mm-hmm. ñu ngi ci octobre ba tey. Mm-hmm. le procès du meurtrier du Sénégalais s'ouvre tey ci mardi bi devant la cour d'assises de Paris Libération moo ñu ko xamal. Mm-hmm. Abiboulaye Diène mi l'horrible assassinat. incha lu métti la kii. lii tamit kay doy na waar nag wax dëgg yàlla doy na waar doy na waar de. ah nit dof placé nañ ko sous contrôle judiciaire journal bi mu ngi ñu koy xamal ñu dem ci lii quotidien plan de relance d'Air Sénégal le bilan double XL de Doudou Ka ma Air Sénégal moom kañ lay daw te dootul amati problème. waaw non moom moom Air Sénégal la plan de relance chaque année la xanaa. waaw moom moo jaaxal moo tax ma daal ñaata plan de relance lañ ciy am ñaata énergie lañ ciy def vraiment Air Sénégal mais nan la ñu a amee i tolof tolof. j'ai yi ñu koy ne yow say tubaab yi nga xam ne tubaab yi nga xam ne ñoo fexe xulli ñoo ñoo fexe ba tëj compagnie daanaka bu mag bu newoon Afrique ñu kaa wax Air Afrique ñu fexe ba tëj ko. waaw Ethiopian Airlines am doole lool ëpp leen doole ëpp leen personnalité wuy ma. waaw ñu ngay ruube jaxase Éthiopie. mais xulli compagnie bu fi jóg koor pour am doole. Mm-hmm. arrangé wul Air France. Uh-huh. donc Air France dañ lay wan la ñoom ñoo am qualité. yéen amu leen qualité léegi nag yow nan ngay ñëwee di dénk koo xam ne sa concurrent la ne ko géreel ma moom mu ñëw xullil di fexe affaire bi am problème dix milliards dans doo normal moom muy doxle parce que ñooñu ay les français ay nationalistes lañu seen bopp la ñu bëgg yow nag boo demee noonu di 44 ne man ñoom laay liggéeyal ñoom laay àndal ñoom laa gëm ñu jël sa xaalis rek use ko et puis sànni la Air Sénégal boo xam ne ba mu juddoo ba tey boobu ba tey ñu nga ca tous ñebe ñoom nag wax waaw oustaz dafa ne nee na ñu def ah maa ci les chiffres clés de la loi de finances 2024 maintenir la dynamique de croissance ñëwal nii <laughs> ñëwal l'info entretien extension euh, Barthélemy Touarkal mu ngi mettre en garde euh, en garde yéen constitutionnel yi Barthélemy mettre na leen en garde ma lay wax rek ñëwal nii l'observateur manque de liberté inaction politique prudence Amadou et la dépendance sans risque pourquoi PM bi doit sortir de l'ombre du président l'équation du discours de rupture ça c'était marqué du bilan de Macky Sall lu yomb de Amadou Ba et le poids de la suspicion de traîtrise lii yëpp diisul ci doon dam mhm. voilà waa mhm. kay dama lay laaj ndax lii rek diis xo xool leen dañoo nuroo ba nuroo costume yi ñuy sol nuroo nu ñuy taxawee ne joddu rek nii man lii man nag lii nag looloo tax boo effacé kii kii ngay gis nga effacé kii kii ngay gis lii mooy c'est bu ñëwoon duñ teg photo bii de. dëgg la bii moom wax mënoon nañ cànn beneen fu mu solee costume bu noir. Ah, kii la waxoon lii la la. nar yaral nar yaral nar yaral dama ne. Hmm. waa léegi. léegi su ma dindee kii. koy gis. kay. ma dindi kii koy gis. kii ah <laughs> ñëwal nii Walf Quotidien ñëw ci rapport avec Pastef ak Benno mu ne Khalifa fu mu nekk nii ci ay nen lay dox. absence de soins palliatifs dans les hôpitaux patients abandonnés dans xam nga lii. lii lii lii sax fii la waroon ne. voilà voilà c'est ça. man damaa bëgg man problème mu askan wi ngir yàlla bu ngeen ciy tiitre dee leen ko ne dajj ci kaw. voilà. patients abandonnés dans leur souffrance absents de soins euh, palliatifs dans les hôpitaux bi sax c'est un problème c'est un problème réew mi comité des droits de l'homme de l'ONU le Sénégal évincé dina nu évincé évincé waat nu évincé te nu barke yontu barke sëñ Bamba gis nga ñun la ñu nekk man waxuma la gis nga ñun nit ñi évincé ñoo bari yéen ngeen toog nii kuur seen. dañ lay xamal ne la faa mënti jóge kaa mënti doon boo ñëwee ne damay investir ñu ne la yow sa société balaa dara Mauritanien moo ko moom maanaam départ yow dañ lay wan ne la ñun fii suñu dëkk la. Sénégal rek ngay gis état wu Sénégal dooleel ñële ah. sànq ñi ah yow nag man suñu njiit yi xaw ma yëpp façon xalaat yi. yoo xam ne da ngay ñëw ñu ne la yow société ñoo ko ñoo ko moom. Ah. ne la cinquante pour cent yi waa Mauritanie ko moom. Ah. waaw léegi ñu. te yow fexeel ba bul xuloog Mauritanie. lu ma wuy ma même bu la tooñee. Mhm. bu ngeen demee fee dañ la naan yow taxawoon nii. xam nga loolu fulla la. bu ko defee yow di nga xam nooy doxaleeg ñoom di nga leen respecté ñoom ñu bëgg seen bopp. ñun lu tax Sénégal mënuñu loolu. waaw déedéet ñun ca taxawaay ba la ñuy de dès le départ dañuy faussé xam nga nan la ñuy def ñun da ñëw au lieu ñu ne la ñun ñoo moom société dañaan la ñun ñoo yaa ñu moom. kaa ñu jox la pare yóbbaale ñu bu la neexee. ah mais c'est ça. Ah, gis nga uudi ni mu la gisee rek la lay ëwal. Ah, am nga yenn taxawaay yoo xam ne am na fooy toll ci sa dëkk nit du la sax ñemee yëpp bay bay bay xalaata am yenn yenn privilège yi ci sa réew. tailleur yi la gisee rek la lay ñawalee sër <laughs> ci caaya ñor source a de l'ordonnance demandant le retrait du refus d'acquiescement na Papa Assane le juge se d'article nee na le président du tribunal de grande instance de Dakar s'il vous plaît avisez l'article 307 au lieu de l'article 341 hmm. l'article stipule. Hmm. Si et si et seulement si les accusés jugés par contumace constituent ou s'ils viennent à être arrêtés par avant les délais de prescription mu ne l'arrêt l'arrêt l'arrêt de la condamnation est anéanti de plein droit maanaam ca dix jours ya <laughs> delfini et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément mu dans un délai de dix acquiescer de la waaye non acquiescement la waxoon na Ousmane. Sud Quotidien annulation par le tribunal de Ziguinchor de la radiation de son corps liste mu ne un vir boo xamante ne mille leçons ngi ci biir ah am na ay éclairage nag yu ci biir yu ngi def eh, Ndiaga Sylla def euh, Papa Assane wala lii du ah expert électoral dama déglu. Ndiaga Ndiaga il est fort. il est très fort tubaarkalla il est très fort le témoin ñëw ci euh, Mamadou Moustapha Ba ministre de finance et du nee na Nabou. Lamou nee na Papa Assane nee na. Mm. Euh, mu ni Macky Sall mii mu ni il va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012. parce que 700 milliards de recettes fiscales supplémentaires attendues en 2024 il faut attendre d'y être. kii mm-hmm. euh, euh, ndaw si nu mu tudd sax Sam. Mm-hmm. accord je vais mettre entre guillemets fiscal. Mm -hmm. recette fiscale sept cent milliards recette recette fiscale qui viennent d'où qui proviennent d'où xulil bu jógee si ñun bu jógee si ñun kon dee nañu sept cent milliards yu jóge ci ñun ci recette fiscale moo xam ci ñay jaar ca poor ba moo xam feneen ak feneen waaye ñi nga xam ne nag ñoom xulil mhm. ñoom dañuy liggéey ci biir Sénégal am fi looloo loolu te dëkkuñu fi ñoom ñoom lu ñuy fay ak li ñuy fay anam ñu ci bëri si ñoom dañ leen a jàppale dañ leen jàppale yombal leen mu oyof. Mhm. doon naa dégg si jamono Auchan bi ñu fi ñëw quatorze ans lañ leen exonéré. Mhm. après ñu weddi. léegi nag état bi day taxaw weddi am ko xam la ca biir ne la déet saa yi nii li mën a def waaye lii moo am nga taf sa génn te mënoo ci dara. Mhm. xulil. yow ngay sénégalais war a bay ñu ne non doo bay wala bay bi day jafe suuf si pour nga jot ci day am problème mais ñoom waa Auchan mm. am nañu ay possibilité am ñenn ñoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom directement di bay di leen jox. ñun mm-hmm. mm-hmm. nii rek. Ah. waaye yow xanaa déggoo lu taasukat yi di wax. Mm-hmm. taasukat yi déggoo lu ñu wax ñu ne jëkkër da lay boot nga ne nongu sa dara du lank <laughs> waaye déggoo loolu ba tey. wax na dëgg de. si si maanaam tey jii su ma bëggoon orienté tâche bi ci yow. dama naan la jëkkër da lay boot nga ne nongu sa daara du lank mm. Pa Assane dama boot ma ne nongu sama daara du lank mm. <laughs> foofu laa yem sama xel moom mu ne le président Macky Sall dellu mu ne dafay mu ne maanaam va laisser le Sénégal dans un état meilleur bu gën maanaam bi ko président Wade di jox lenge yi euh, ni mu ko fi nar bàyyee mooy gën gën a gën. waaw waaw bañ koy jox réew mi. ñaata det la fi euh, président Wade bàyyi woon. Euh, euh, ñaata la fi bàyyi woon du 3000. du 3000 de dettes ak lu teg. moom buy dem ñaata ñaata bor la fi bàyyi. moom ñaata bor la ñu fi bàyyi bàyyi 14000 milliards. ah coow li eh, yàlla baax na. man daal recette fiscale état psychologique bi mu bàyyee Sénégalais yi rek buy dem problème la kaa la de. en fait xam nga lan la mel quand quelqu'un cherche à convaincre. si tu es déjà xam nga prêcher à un déjà convaincu je sais ce que tu veux me dire nga topp ma di ma ko wax. Mm-hmm. on a compris pas la peine qu'on nous le dise on a compris. Mm -hmm. en nous au moment où nous souffrons à la le message ne passe pas on ne t'écoute pas. Mm-hmm. nit ñaa bëgg a dee ngeen yokk lépp naan recette fiscale. yu yokk recette fiscale mooy yow da wax luy bëgg a dee xoolal deux minutes pour lire l'essentiel nee na boo économie bi ñuy waxtaan maa ngi lay jën yi génn nag génn migré nañu danoo migré mu ne les nas sont vides papa Assane fu muy lekkatee jën ci lépp bu mel ni moom. waaw lii yaax ak coof. bëgg sëdd. Hmm. Ah, ak sompat ak sumpuut bëgg sompat ak sumpuut yaa ngi dégg. ah yow nabukoor fooy jëlee tee ay. yow yooyu foo koy jëlee tee ay koŋ ndeysaan yaa ngi dégg léegi jay baa ngi ñuy bëgg a rey. waaw mais moom lii da ko fi bàyyi di. waaw ah, ci li mu fi li mu ñuy bàyyee lay bokk ah, da ko fi bàyyi mami daf fi bàyyi tamit kii <laughs> rapport yi. rapport. ah yan mbiru mbiru mbiru jën dafa am ko ci war a wax bismillah. yàlla asalaamaaleykum Paasam. Thiaw laay noo def. Paasam maa ngi yaa ngi en direct ñëpp ngi laa déglu. ah. waaw ah, fi ne àdduna bi yëpp ngi laa déglu Thiaw laay yaa ngi Espagne. waaw maa ngi nii Espagne maa nii mais caw cawlaay cawlaay noo def ba jaar ci géej gi ba dem Espagne laa bëgg a xam wax ma xam nga waxoon nga ma ko. ah ah la ma la waxoon def noo ah, li ma la waxoon rek man nee naa la paasan ba soobee yàlla suñu borom incha allah lu ma ba génne def ba génne naa la. waxoon nga ma ko def nga ko de. parce que paasan ñun ay mool lañu dañu nekk si Sénégal di dem géej mënuñoo mënuñoo jàpp jën mënuñu dara si géej gi. <laughs> da dem jéeg ba Assane da dem jéeg bay bëgg a dee doo am doo am dara dara dara. Hmm. ba keroog keroog bi ma mujjee diggante ak yow mën na la maa ngi nii di nappi ci biir jéeg di nappi. Hmm. Hmm. jour boobu dama daw naa ba teer sol naa essence deux cent et quelques mille. sol set set essence la daw. benn jën jàppuñu ko benn jën. gi man ma nekk bari ñi Pa Assane man samay ay moroom di jël gaal yi. di ñëw Espagne man ma toog Bargny ba jour gàmmu si guddi si laa tëmbee Bargny vingt vingt une heure si laa quitté Bargny mhm. gars yi jël cap ñu daw ba cent kilomètres bi ñu dawee ba cent kilomètres ci biir géej dañu dañu tëmba Bargny si cent kilomètres mhm. soo ko jël kabu kabu Dakhla Maroc Dak Dakhla bi ñu dawee ba Dakhla doon nañu doon nañu programme bi programme bi jiyee tag ñu dugal programme mu bi ñu jógee Dakar la dugal programme mu Espagne il il Tenerife la ñu teere Tenerife. Tenerife ñaata ñaata fan ngeen ñaata fan ngeen daw. six jours kese pa Assane six. une semaine. mënoo ngeen ma yóbbaale de. waaye caw bul dem waay. déedéet caw mënta dem. waaye caw laay waay kaay waaw six jours waaw. six jours kese lañ ndaw si ñaata ngeen ñaata ngeen woon ñaata ngeen woon ñaata ngeen woon. asalaam allo. ma ne ñaata ngeen doon ñaata ngeen nekkoon ci gaal gi. allo. waaye caw caw déplacé wul waay. oh connexion bi waaye. connexion bi waaye Thiaw laay dee nga Espagne waxoon na ko de. waxoon na ko tey def na ko de. ndeysaan. def na ko de yàlla ko fa yàlla defal jàmm. ubbi ko fa xéewal dëkk boo xam ne jeunes yëpp ñuy dem nii di dem nii. mais il y a plus de jeunes. il y a plus de jeunes man xam nga lu may ragal ñu yow dëkk boo xam ne du gisatu góor. mais li ma doon wax ni c'est capital. mais les jeunes partent mais les hommes restent mais si les jeunes les hommes jeunes partent. mais mais Nabou qu'est-ce qu'on va devenir ma ragal ñu koy doon gis lu góor ci yow yow. ay yow Khalifa approuvé nga du ma yow bu lañ lay may kim. yow may ma jàmm ah <laughs> ah waaye yow yow yow papa Assane li ma lay wax nii xalaat ci de te yow Nabou yaa ci war a gën a xalaat ndax yow yaa sama naataangoo jibir dama lay wax rek mën nañ yeewu nii suba teel lañ xool ana góor góor muy góor ñëpp dem nañ. bato yi di man man xam nga cawlaay bi su ma ko yëgoon du ma du ma fi bàyyi nag man waa Bargny laa am naa ma naqari torop waaye pétition pour la reprise des rotations d'Aline Sitoé Diatta Aguet et Diambodj moom lañ doon wax waaw vraiment s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous important taxaw leen ci ah mm-hmm. kii sax góor la kenn xamul lii lan la tamit wax dëgg yàlla ñu dem ci làmb ji na bu ñu dem ci làmb ji. oui ma papa ci làmb ji heure boo jotaatee caw laay dugal ko dégg nga waa kay mu ne. Modou dafa déclarer la guerre Ama Baldé nee na ko Ama damaa bëgg nga pare ndax man pare naa à cent pour cent. combat bi kañ la. mu ne mu ne mu ne euh, euh, kii la de kañ la novembre non le 5 novembre. dans un mois 5 xaw ma waaw loolu accident la le novembre je sais plus. mais je pense que c'est en novembre ouais Modou na ko yow xam nga kan mooy Modou mu ne lépp lu combat bi laaj dinaa ko def mu ni Abdou Bakhoum nee na Kama. soulève au Modou ba pare écrasé ko au sol yow mii Abdou Bakhoum yaa doy waar nag yow Abdou Bakhoum yow lii ku la ko wax loo ak lii yow ku la ko sant nga naan Ama na ko yëkkatee yow da nga yaakaar ne Modou lool lañ ko yëkkatee di ko daal Abdou Bakhoum évite moi <laughs> mu naan kii la soulève au euh, écrasé au sol. loo loolu la lébuy di wax naan xoolal na la pok ba biir weex papa Assane. di mhm. ràjjala ci suuf. waaw. lébuy la ñuy wax. waaw mu ne ko nag da ngaa pok ba biir weex. di ràjjaka ci suuf. Thiaw. Ah, waa kay waa kay. ma mami mami Samb nee na lébu dañ la naan dañ laa yëkkati ba kok weex. dañ laa pok ba biir weex dañ laa biir weex. ñu ràjjala ci suuf. ñu ràjjala ci suuf dégg nga mami Samb li mu wax. nee na dañ laa kopp nee na lébu yi dañ naan dañ laa kopp ba biir weex. kopp ma pop pop pop. même Samba nekk ay moromam yëpp a ngi fi wax loolu. ay moromam yëpp a ngi fi wuyu. même Samba. Thiaw damay ñëw. nekk nekk Ablaye Thiaw Thiaw. fii wóorutul sax. seen morom yëpp ñu nekk man sama gaal sama gaal benn jigéen boo xamante ne ñoom maa moom ñu dëkk bari ñi. waaw ñu jur ay doom ay see. ñaari see ak seen mag ñu ngi fii ci Espagne wax loolu. ci gaal gi lañ dugg ci gaal gi lañ jaar. ci gaal gi lañ ñëwee. ci gaal yi lañ mu ngi fii mu ngi Espagne gii am na ko xamante ne moom mag ma mi sàmm fuuf ay paa ay paa ay paa. waaw ñoo xamante ne mënuñ ñaa ngi jëy dara ñu ngi fii si Espagne. góor yëpp ci gaal gi lañ jaar. si gaal yi lañuy jaar man dinaa la envoyé ay vidéo nga xool ko. ñu neel kay man nekk ca wala ay nee na la envoyé ay vidéo nga xool jigéen ñi am na gaal goo xamante ne vingt deux jigéen lay ak. ak juróom-benn xale ay liir juróom-benn xale. jigéen ak juróom-benn jigéen ak kees xale ñu ngi fii. yow yow yow sa gaal ñaata nit ñoo ci newoon. sama gaal cent quatre-vingt-sept personnes ñoo ci nekkoon ak benn jigéen ak six xale. te ñëpp dugg nañu. ñëpp paasan gis nga gars yi ñu ngi naan maa ngi dégg sama yaay ba ko dimba mu ngi wax bay jooy mu ne ko yaay dalal leen seen jàmm fi tëdd fi andi kenn ñu ngi si jàmm. man maa ngi nii aéroport Madrid laa wàcce barki démb la ñu wàcce Madrid léegi gars yi dañu tas fii boobu boo bëggee dégg-dégg doo bëgg saa sénégalais ñu ñu ngi nii côté Wëlba Wëlba ci côté Sevilla la nekk quoi booru Sevilla. Sevilla. Sevilla côté boo laa nekk nii. base mais yan condition nga ne yan condition nga nekkee. maa ngi tubaab bi ñoo nekkee nii man maa ngi nii ak tubaab bi ñu ngi nii si kaw. ñoom lu ñu leen wax lan lañ leen wax lu ñu leen traité. ñoom ñooñu instant ñu ngi teeñu jox ñu ay yére jox nañu lekk ñu ngeen naan te kenn ku si nekk dina la agent de poste cinquante euros. cinquante euros pour combien de temps par jour. Ah, pour agent de agent de poste rek. agent de chaque quinze jours. chaque quinze jour ok. mais ñoom dañu lay téye durant trois mois nga jàng. Mhm. da ngay jàng. Mhm. parce boo bëggee dégg-dégg rek barki Seydina Lim moomu fii. waaleykum salaam damm asalaam rek moo fi am. ñu ngi génn si mbedd mi la doxantu. ñu ngi remonté policiers yi. ñu ngi mm. amuñu problème amuñu benn problème. jàmm rek moo fi am ñaan yàlla yàlla mel ni suñu papier yi génne ñu dem ñu liggéey kenn suñu ay waajur. incha allah ñun loolu ñu indi fii. ay taalibe Seydina Limaamu lañu. alayhi ñu naan du ñu téye du ñu Mm-hmm. demuñu soirée dugguñu boîte mm-hmm. ku bëgg a bon boo ñëwee fii di nga bon ku bëgg a baax di nga baax mm-hmm. da ngay romb si ay jigéen di la woo mais ku bëgg a baax di nga baax ku bëgg a bon di nga bon caw nga ne da caw ah, ah. nag bu ci sa wërsëg nag wax dëgg yàlla ah caw caw baal ma gars maanaam ah, comme ñoom ñu gisee nekkee nii dégg ñuul ñoom da leen jaaxal quoi waaw dañ la naan ola ola ah. ola. léegi après. nga lan ñoom. ngay waxtaan ak ñoom nii. looy wax ñoom Thiaw looy wax ak xam ne de non dañ lay woo. nga waxtaan ak ñoom ñi photo ñi yow. ndeysaan waaw Thiaw bul sàcc film bi Thiaw. ñi yow maanaam ñoom ñun. Assane. man maa ngi dëkk koñ boo xamante ne koñ Potoro la koñ bi mu dëkk nii maanaam. ma ne ko coup de coude en Espagne parce que tubaab bi beneen tubaab bu nekk si dafa mm-hmm. dëgg olof. moom mooy waaye ñun si olof bu gaay waaye mu Espagne. moom moo koy traduire olof. ok parce que moom mu nekkoon Dakar mel muus. bu nekkoon sax waaw. mais mais nee nag ñun yàlla dañu suturaal parce que ñun macha allah koñ bi ñu dëkk nii ñëpp ay tool la ñu koñ bi ñu dëkk man maa ngi. moom kay ci tool yi ngeen jëm. moom kay nee na ko bëgg dem tool di nga tool mais. parce que ñoom parce que ñoom espagnol yi tubaab yi dañu muus. moment bi dañu soxla ñu defar seen tool yi soxla ñu liggéey c'est normal. man de bu dee tool man sama vol rek man sama vol sama vol trois cent et quelques personnes ñoo si nekkoon te ñëpp boo doo ci gis kenn ñi nga àndaloon ba nga wàccee aéroport Madrid lay tubaab bi orienté ñi ñi Barça ñi Valence mhm. ñi Real Madrid. Mhm. maanaam daal dañuy tas ñi Atlético Madrid ñi ñu ngi côté. Europe sax dëkk bi dëkk bi boo boo Portugal côté bu à Portugal. ok ñoom frontière ok moo Portugal. ok te man tamit fi mu nekk nii à Portugal yaa ngi koy daw six heures temps ngay daw. a Portugal si mu ñëwoon. ok. ba ba tubaab bi dañoo pare tubaab bi dina jox carte goo xamante ne tey boo bëggee dem seeti say morom carte gi ngay jël bis doo fay. ok da si bis rek nga xam ne yow mi gan nga. Mhm. yàlla seetlu loolu mais nag. gaal dalal waa Sénégal man Ablaye Thiaw képp ku dëkk Sénégal sa doom ñëw si Espagne wala sa mbokk ñëw si Espagne barki bàyyi laay ñu ngi si jàmm léegi dal na seen i xel Macky Sall si andu fi ak nit fi kenn ñëw fi Sénégal ñun ñëpp ñu ngi si jàmm Espagne moo signé loolu parce que gars yi ñu ngay génn vite fait cas ba ñaar fi nekkoon ma tey rek tey rek ñaari vol war naa génn Tenerife te samay copain yi ñu ngi seen vol woowu fii si encore kon gars yi na nga bàyyi Sénégal di nga fële revue de presse yi journal yi na nga xam xoolaat li nga wax Macky Sall ànd fi ak nit Sénégal parce que tey gars yi mais doo defalu Sénégal yi paasal ñun duñu bi ñu dugg ay ay ay billet avion yi la jël vol la ñëw ñu dëkk mhm. dañ doon fële kon kay si si il ba il ba la ñuy des ña kay ñu ak Sénégal mhm. bari ñi bari ñi macha allah yal na leen yàlla defal. yal na yàlla defal too fee yàlla musalee si cat ak laa. amiin amiin. kon nag ba mu dugg xaar ci toog naan bari ñi li fa jógee. bu nekk ay waa bari bari ñi bii clandestin amee ba tey paasal waxoon na la ko benn bés. xam nga yaa ngi fàttali ko xaw ma. waaw. neex naa la Pa Assane bari ñi bëccëg bu ñu bëggee si wàllu a. Mm-hmm. mais dëgg la treize gaal ñoo génn bari ñi gaal génn na bari ñi kenn amul si jafe-jafe kenn amul si torof torof macha allah. macha ba gaal gaal yi nekk si yoon yaa nañu àgg si Espagne ci jàmm asalaam amiin amiin amiin yaa nañu duggoo benn benn benn bu gars yi def yaa ngi koy gis. waaw bi bi ñu bi ñu gën a waaw. gaalu bari ñi la. suñu mbokk la yëpp ñu ngi si gaal googu nag yàlla na yàlla andi si jàmm. ak salaam amiin amiin amiin Thiaw Thiaw jigéen yi jigéen yi foofu laay tëjee ak yow jigéen yi nga xam ni tu m'as dit que y ak xaw ma ñaata xale ñooñu ñooñu fu ñu yóbbu. jigéen moom ak xale yi moom boo ñëwee da nekk à parce que jigéen ñi bi ñu ne Espagne cëpp si si île si île bi Tenerife bi ñu ne bi ñu teeree cëpp ba daa lay gëj a gis bu jëm tey. xaalis boo fii tubaab bi dañuy mën a mën a ñëw jiw dañ koy jógoo ma dinaa envoyé ay quelques photos ak quelques vidéos nga xool li ma lay wax. Mhm. man lépp lu wax da doon seere. Mhm. boo teeree xale yi tubaab bi ñu koy jógoo siif. xale sa neeraay bu ne def naa si kàlla wax une semaine mais tubaab bi xale yi ak jigéen deux jours la def ci camp bi génne génne dugg biir biir Madrid ñenn ñaa ngi Barcelone. ok ñenn ñaa bi ci capital bi. xale yëpp benn xale nekkatul ci camp ba xale yëpp génne nañu. très bien na mu ngi laa ziar. bu baax di ngi lay ziar bu baax Mamy Samb Nabu Koor ak ñoom Ngala. na ko waaw ñoom ñëpp daal mi ngi noonu rek déedéet maa ngi leen di ziar même Samba paase ak après de ak ñu doon numéro moom moom dama koy daan déggee tout le temps. incha allah. jaajëf voilà nee nga Thiaw laay nee daal après nga déggoo sa numéro. dëgg allah incha allah laay laay. jaajëf jërëjëf jaajëf jaajëf. ma ne ko la promenade dans Libou de de Libou en Espagne. wax kàlla. ma ngay promenade Thiawla defar la jàmm. Thiawlaay sa expérience riche na te di nga wax yépp am na solo waaye nag. ma ma répété benn affaire ma répété benn affaire ndox daxa am yoon daxa am noo see demee. foofu la foofu la ma yem. kay ne jigéen ñi feebar naa na rek. ah man de man wax dëgg yàlla su ma ko teeloon yëg duñ ma fi bàyyi man xam nga coow li mooy buñ ma yóbbu war maa bay loo rek loolu rek mooy coow li papa Assane. ah dëgg yàlla. ah yow bay bay sa problème. waaw man ndox mi may jaar mooy sama. waaw yow la chasse bi sax boo ko boo ko tijjee pression bi. foo rek <laughs> dara mën na maa dal. ayca <laughs> échange couleur am na dimanche dernier ci diggante Tapha Tine. Mhm. nee na nee na Eumeu Sène dinaa la duma daan la Eumeu Sène nee na ko maa la mën te maa la ëpp doole. stade ñëw ci match amical bi mu ne convaincant en attendant la CAN euh, ndax démb Lions yi ñoo gagné 1-0 gis nga record wax mu ni les Lions domptent les indomptables ci match amical bi nga xamante mhm. euh, doxoon démb ci diggante Sénégal ak Cameroun waaw kay su ko defee yal nañu yàlla defal jàmm defal leen xéewal ak sutura euh, Papa Assane. ah tu as fini ta waaw mais dama bëgg a tëj ci lu am solo. oui vas-y ma yéen loolu ama am solo la. Mhm. Seck. Mhm. góor ñi dem bari nañ de. <laughs> am naa sama benn cousine bu nekk bar ñi nee na moom seen bopp. Mhm. xale góor yu ndaw yi dem nañ. caaray tamit am na ku ma ko wax. ni ma ñu dem am na lu ma gis euh, tout ce qui est raffinerie gaz pétrole machin caaroy sur mer y a un danger énorme foofu. am na fu ma ko gis de. Ah euh, Mansour Mansour dee leen seppi yu baax yi waaye di ko génne. Mhm. ah dee leen seppi waay. Mhm. loolu dañ ko war a génne. gis naa ko ci journaux yu tey si si il faut il faut montrer les choses les plus valeureuses quand même danger bu mag la. maanaam kër yi dañuy nekk ci ci foo xam ne léeg-léeg ay tuyaux dañu fay jaar wala ay. dañu ne bu exploser marre day um si. je je pense je l' je j'ai l'info ici dañu ne euh, euh, xaaral ma génn ko fii parce que c' est très grave euh, am na fa ma ko gisoon de waaw waaw am na fa ma ko gisoon de lu doy waar la loolu comme info. Mhm. voilà journal bu noo wax antenne quotidien dafa ne sur un rayon de vingt huit kilomètres carrés wala boog un rayon de vingt huit mille kilomètres carrés sera rayé de la carte Mardey Oumsi en cas d' explosion vingt huit kilomètres carré xam nga lu ne fuite d' hydrocarbures Thiaroye sur mer état wu Sénégal nag xam naa yëg na ko xam comment ils vont s' organiser yéen a ngay fàttaliku Liban explosion ba amoon ca port ba. Marday Umsi. voilà. Ah. et pourvu que kilifa yi. loolu de nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax. c'est dangereux Caaroy sur Mer si ña fa dëkk dañu bari kaar. ah tubaarkaar la foofu. donc yal na yàlla sàmm leen yal yàlla sàmm leen yal yàlla sàmm leen. ma dëkk papa la maa ngi lay nuyu waa Sambeen bu baax ak waa Mangi waa Mengen. wallaay ngi leen di waa waa Mengen. ñooñu doon ak ak Ñengen. waa Mengen ñooñu doon ba papa Assane naan waa Sambeen nag seen i jëf ñu ne leen waa Mengen nag seen ndaw ah waaw waaw gerte day sax mondial